Serigne Saliou ñu ngi lay nuyu bu baax di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha Bassirou mu gën fa yàgg te wér ba li mu bëgg a liggéey Serigne Touba lépp sunu borom tabaaraka taala te bëgg ko kàttan gu ànd ak tawféex ba mu def ni kaw njottam ñu ànd ko ak moom darajee Serigne bi xaside yi tey ziyaare tey nuyu mbooleem ñi nga xamante ni baaxoon na ñoo seetaan ci seen bi nga xamante mooy Tanime TV di leen ndokkal baax di leen ci gërëm bu baax a baax jërëjëf Serigne Saliou jërëjëf mbokk yi kii ñuy jàkkaarloo nag Baye Serigne Gueye la tudd Minanul Baaqil Xadim di yëngu ci wàllu lasaraal di ñaan di seet di nga xam ne nag képp koo xamante ni am nga ajo joo xamante ni ju la jaaxal la jàpp naa ne bu ngeen ci waxtaanee wala nga ñëw toog fii ci moom wala ngeen jokkoo téléphone booba yaakaar naa ne incha allah rabbi di ngeen am la nga ci bëggoon bay Serigne tey ñu bëggoon a tàmbali jataay bi fan nga bëgg ñu ñu doorewaat fu jataay bi. jërëjëf Serigne Saliou ku ñu gis ci jataay bi xam ne yàgg nañ fee jaar. tegi ñi ñëw nag ngir laabirante suñu mbokk jullit ak suñu mbokk taalibe yi muy aaya suñu borom bi nga xamante ni mooy wa ida saalaka ibaadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daai ida daani fal bi laalum yashudun loolu boo ko déggee xam ne kon jaamu yàlla bokk na ci yi gën a mooy jaam bi am soxla ñaan boroom subhaanahu wa taala ñaan nag ki koy def ak jaamu yàlla ki koy def ak jaamu yàlla te suñu borom bi ñu sàkkee wàcc ci àdduna dafay wàcc ay yitte te yitte yooyu borom bi subhaanahu wa taala daa ubbi ay yoon yoo xam ne jàmbu jaar bu nekk rek sa yitte yooyu mën naa faju yitte yi nga xamante ni nag day faju daa bëri ay yoon bëri ay xeet bépp jàmb yàlla xereñal ci loola bu jaaree ci sabab ya borom bi mën na ko may tawfiq foofu kon Serigne Saliou bunt bi ñu fas yéene tey mooy ñëw ci li ngay wax dëgg-dëgg ana ci lan lan war a ñaanee lan mooy li nga xamante ab jaam bu ci jaaree ñaan nga ko war naa nangu hmm. Hmm. mbokk yi dégg ngeen ko kooku mooy Baye Serigne Gueye Minanul Baaxal Xadim numéro téléphone am 78 599 74 74 dégg ngeen li mu wax mu ne bunt bi nga xam ne ku bëgg a fëgg suñu borom ban bunt nga war a jaar ak fan nga koy jaare ak nan nga koy jaare ñaan xam ngeen ne dafa am ay waxtu yoo xamante ni waxtu yu yu nuy sàkku yoo xamante ni ñaan def caa gën a gaaw am na ci bis yi am na ci tamit ci jamono yi Baye Serigne boo doon wax bunt yi nga xam ne kuy ñaan suñu borom ni nga koy ñaanee ak wan façon nga koy ñaanee lan nga nuy wax bunt yooyu yonent bi sallallahu alayhi wa daa wax ni daawu mardaakum bi sadaqa na ngeen faj seeni tawat seeni yitt ci génne ay sarax loolu benn la ci bunt yooyu bokk na ci bunt yi jàmbu tàll ay loxoom ñaan yàlla bokk na ci bunt yooyu jàmbu jaar ci turu yàlla yi ak ci tiirab yàlla bi ak lu xeet moom ñaan ci borooma ngir borooma mën koo may dara waaye loolu day mel nag faaw nga am ci ak xam-xam faaw nga am ci ak yàgg nga soog a mën a am ci aw yoon lépp looy jëf lu nekk boo ci amul xam-xam loolu mënoo ci def résultat te damay far di wax ni mboolem kuy jàng alxuraan ku nekk mboolem ki jëf ni ko tur yàlla ku nekk boo yàggee ci loola xam yoonu lasraar xam yoonu ñaan xam yoon wi nga xamante ni moom la ëhlu suufi yi yëpp tënk ci wàllu ñaan boo ko xamee néewaana ngay sóobu ci mbir te borom mi ubbil aw yoon ci loolu bëriwaale nag lu ñuy wax ñaan ñaan nag nit ki mënu koo def te doomu aadama xamoo li nekk ci biiram ñaan nag daa bëri xeet nit ki mën naa mën a ñaan du mën a bind nit ki mën naa mën a ñaan du mën a listixaar nit ki mën naa mën a ñaan maanaa du xam sax maanaam li muy bindal doomu aadama loolu yëpp mën na nekk waaye nit ki tamit dana ñaanal doomu aadama mën a bind man la saar xam ilmu nujum xam ilmu istiqaara xam euh, lenn ci mbóoti alxuraan xam lenn ci mbóoti yàlla jaam booba bu ko defee kooku mooy ëpp résultat ki nga xamante ni dajewut dajewut mboolem jumtukaay yooyu noonu moo tax néewaana sëriñ boo gis téeméer sëriñ yoo gis yu nekk li muy njëkk a ubbee rek mooy seet loolu lay njëkk a wax daana sëriñ si yëpp dañuy puukarante maa dàq seet sama morom ana lan moo waral sëriñ bu nekk di puukare sa moroom maa dàq seet seet mooy daa doon loo xamante ni mooy bunt bi njëkk ci jaam bi ñëw ci yow wax la dara comme man ni ko yàggee wax sama émission yi bëree bëree bëri même sa yitte ba ma ko xamee ba ma ko waxee ba mu leer faaw ma jël li ma war a jël ci yow xooral la sa mbir ba nopp soo ko mën na jël ci yow engagement ba nopp ndax aw yoon ab dëkk boo fa bëggee dem faaw nga xam yoon ba fa jëm loolu la la koy may nag mooy nit ki nga aw ci ci xeete maanaam ci xeeti lastaar xeet li saxaar yi am li saxaar nag daa bëri ay xeet Serigne Saliou waxoon naa ko émission yële jàll nit ki dana tàllal baaraam nii nga mën a wax ci moom loo xam ne du deñ ndax suñu borom tabaaraka taala rëddi doomu aadama yi ak baaraam yi ni benn bu nekk ay wax la ci biir nit ki mën naa taxaw tamit lenn ci ay màndargaam ci jëmmam am na màndarga yoo xam ne ay wax la yu borom def ci moom loolu nag boo ko jàngee ba mën ko nag mooy war a nit nga jàkkaar moom di wax ak moom wala nga déggantam di wax ak moom mu jàpp ni yow kat maanaa da da da ngaa fekk di ma fekkateyam fekk déedéet ndax borom tabaaraka taala bi mbindee jaam yi ba noppi catalogue bi mu bindi jaam yi catalogue yàlla lakk ko yàlla faru ko yàlla sànniwu ko kat la bu da koo bàyyi ci àdduna borom xam-xam yi ñi nga xamante ni dañuy dañuy yëngu la saar ñoo ñu jël loolo fecc ko benn par benn defu ci ay tiire te lool jaam bu ko jàng bu nekk mën a xam loolu loolu nit ki nag mënoo koo xam te jàngoo ko faaw nga jàng soo ko mën a xam bu dee jëmi wàllu googu nag yàlla boroom bi subhanahu wa def na ni xam nan ko gëstu nan ko moo tax li ñuy li may faral di wax samay mbokk yu bëree bëri mooy néewaana man nit ki ñu diggante ma seetal ko mbiram te niiwut ni dafa may ñaan en lu waral loolu mooy saa yoo ko defalee lim sàkku ci yow moom dana digg ci jëmmam loo xam ni lu wér lay doon yaru na nga ko fàttali ci jëmmam lu weesu woon ak lu teew ak lu nekk ci kanam te loolu day xam ne loolu lu bokk ci moom la seet nag bu ñu koy wax nag mooy lu nëbbu ci biir doomu aadama nga mën koo génnee léeg nit ki dana bëri wërsëg lool léeg nit ki dana am am xel lool léegi nit dana bëri xam-xam lool waaye tolof tolof àdduna ak ak yàgg wut mu tëë faju dana tax moom mu découragé ci jëmmam waaye wow boo xoolee mbiram yee ko ci jëmmam moom day mel ni moom da ko war a faj geneen yi ak yeewute geneen kàttan moo tax am na ñoo xamante ni buñ déggante yow tey boo leen xasee wax seen mbirum bopp rek buñ xëyee suba beneen jëmm la doon nga xam dañuy doxal benn weer ñaari weer ñetti weer jël ay kàddu di ko sotti ngir di wax ni kat sant naa bu ndax ci sama jëmm du benn du ñaar du benn du ñaar du benn du ñaar daanaka seet gi ñu far di seet mais na nujum bëri nag ay seet ay xeeti seet yu mën a seet rafet naa yor mën na fukki seet yu bokkut waaye boobu mooy bi nga xam ne man damaa doy sama digganteeg sama borom damaa doy sama diggante jaami moo tax bu ma ko defee rek li ngay digg mooy bu ma juddoo ba léegi dem naa fu nekk seet naa fu nekk waaye musuma digg ab sëriñ bu ma wax lu mel nii. Mhm. loolu nag du leen lu nag xam la borom téere boo xam-xam yi bind bàyyi ko ci yi. boo mënee gëstu mën a xam lan wax bu ko gëstoo mën koo xam ndax sunu borom tabaaraka taala nëbbut njariñam ci biir jaamam njariñ yàlla daa yaat ki da kàpp ci àdduna bi jaam bu soobu ba gërëm ci njariñ loolu boo demee yàlla yàlla gàtt na la jox la njariñ loolu loolu kon Serigne Saliou nga xam ne ko ñaan mooy bokk na ci ponki jaam yàlla yi gën a rëy mm-hmm. ñaan nag boo dee xool nag ki am daraja da koy def ku suuf daraja da koy def bo ki bokk ci yàq wu rëy da koy def ki am alal da koy def ki ñàkk da def ndax bëgg-bëggi bëgg jaam it daa tolluwu te kenn ku nekk dara ji la yàlla jox say bëgg-bëgg noonu lay toll moo tax mboolam xeet doomu aadama yëpp dañuy far di ñëw ci yow moo tax liggéey boo ci nekkee benn at ñaari at ñetti dem ba yow da nga xam jëmmi doomu adama yëpp ndax quatre parties yi nga xamante moom la yàlla bind mu almaay yu nahaari yu turaabi yu euh, euh, hawaa yu mooy ñeent yoon nattu yi ma googu noonu hmm. yow boo ko seetee fukki weer ak ñaar day dem ba yow jëmmi nga xam boo demee ci fukki buruj ak ñaari ak fukki biddiw ak ñaari daf ko fukki maam benn at ba ñaari at da dem ba yow doomu aadama day digg day waxantee yow rek nga xam doomu aadama ban ban ci ban équipe la bokk ban catégorie ban catégorie la bokk nit ki ne bu xasee xam boppam nag xam li yàlla def ci moom ak li yàlla dëxañ ci moom ak mbóoti yàlla def ci moom tur yàlla yem méngoo moom ak ay alxuraan yem méngoo moom cuuraay ya parfum yem méngoo moom yow boo ko defalee bu ko jëfee kem na nga ko waxee faw suñu borom dana ubbi loo xam ne dana dal am xelam li tax mu yow mu doon jokkalante yow Mm-hmm. jërëjëf mbokk yi ñuy déglu ci seen site bi ñuy wax Tanim TV tey nu dalal Serigne Baye Serigne Gueye mi noonu baaxel xadim mm-hmm. ngeen gis ko mu doon jëmm ju sell jëmm ju ragal yàlla joo xamante ni lim lay wax nu ko dëggoo wax ji moo gën a dëggu li muy wax ni mu koy waxee noonu la koy jëfe képp koo xamante ni jëflante nga ak moom jàpp naa ne di nga ci gis lépp lu mu man dana la ko wax lu mu mënul tamit day lay wax ne la mënuma ko Baye Serigne képp koo xamante ni dafa am aajo bëgg ku ko ñaanal koo xamante ni moom ñaan na sunu borom ba taay ab jaam la lan moo tax ñuy nangu ñaan nag ki nga xam ne bu ñaanee rek sunu borom nangu ko loola fan lay nekk ak lan la. xam nga daa bokk ci sabab yi nangu ñaan. Hmm. Serigne Touba jàng ci misaal gi naan. Hmm. waaye mën nañ ci lim leen rek mooy koo xamante ni day góor diggante boroom ci ndigal yi jëfe ndigal bàyyi tere yi. Hmm. di lekk lu lew di wattandiku lekk gu di wattandiku bakkaari ndaw yi ak bakkaari mag yi. di tëdd ba guddi di jaamu sa borom subhanahu wa taala tatajaafa junubuhum anil madaaji'i yad'uuna rabbahum xawfan wa tamaa wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun yooyu wa mina layli fatahajjad bihi naafilatan laka asaa an yab'athaka rabbuka maqaaman mahmuuda yaa ayyuhal muzammil qumil layla illaa qaliila yooyu daa bokk ci jumtukaay yi nga xam bépp sëriñ boo xam ne yaa ngi koy def faw suñu borom dana ijaaba ci li nekk ijaaba nag ci wolof mooy lépp loo jublu nekk yàlla wuy la ca lépp loo dog lu nekk yàlla wuy la ca ngërëm mooy lan mooy lépp loo wax lu nekk yàlla d'accord ci loolu waaye loolu nag yombut Serigne Saliou ijaaba ak ngërëm daa bëri lool ci làmmiñu nit ñi waaye néewaana jaam yoo xam yàlla may na leen ko ndax lay tax yàlla may ab jaam daa yombut moo la ki la dàq jaamu yàlla gën laa ragal yàlla gën laa wattandiku diggante borom diggante moromi jaam kooku moo la ëpp résultat ci mbiri maam diggante jaam yi mu ak sellalam ak jaamu yàllam dana ko may nit ki bu diggante moom téléphone ajam day fajoo sëriñ sa xam nga ijaaba daa bëri ay ay ay martaba mhm. ijaaba ay xeet yi bëri la am na ijaaba goo xam ne nit ki jaamu gi muy jaam borom moo koy may xalaat gi ngay xalaat bay sëriñ Gueye minal baax xadim mën naa faj sa xaajo mhm. waaye am na koo xamante am na koo xamante ni ijaabaam fi muy toll mooy faw mu jël téléphone am woo bay sëriñ Gueye minal baax xadim ajam soog a fajoo mhm. am na koo xam ne mu jugee barab ba mu dëkk fekk ko si barab bi mu dëkk aajoom soo ko mën a faju mm-hmm. am na koo xamante ni faaw mu def loolu yëkkati alam joxe ko aajoom soo ko faju mm-hmm. am na koo xamante ni darajaam ci ijaaba bi nga toog seen ñaari bët yi bu gisantee aajo mën naa faju mm-hmm. am na koo xamante ni yéen ñaar bu leen bokkee toog sa aajo mën naa faju am na koo xamante ni yéen ñaar bu leen bokkee lekk ba naan ba saaw aajo mën naa faju yooyu ay ay daraja la ci ab sëriñ ab ijaabaam mhm. loolu na lay tax nag nga mën a am lépp nag mooy ni mu ko njëkkee na wax ci njëlbeen mooy sàmm sa digganteeg sa borom sàmm sa digganteeg nit ñi sart yi nga xamante wax na ko ci sarti nangu ñaan ngay njëkke loola di mujje lool loolu jàmm bu ko def bu nekk faaw suñu borom di la may mhm. sëriñ Saliou yàlla yoon wi mu rëdd mhm. bépp jàmm bu fi jàll bu bu ci jaar lu àdduna tërëdi tërëdi tërëdi tërëdi tërëdi faaw suñu borom may la résultat ci jaam yi ngay liggéeyal. Mhm. lu àdduna tëri tëri tëri bi góor góorlu diggante boromam jaam boo jëflante la faaw suñu borom tamit góorgóorlu ngay góorlu ci moom yàlla noonu lay faral ci jaam yi ngay jëfandikoo. Mhm. léeg-léeg sax nit déggante yow wax la da ko waaw baax na dégg naa laata ngay bind mu la àjja faju na loolu da xam ne kon loolu. Mhm. maa suñu borom ci boobu moo bëgg a wax ak yow ci li nga nekk rek. moo tax bépp ndaw. bépp mhm. sëriñ bu la mhm. gën a góorgóorlu ci yàlla mhm. gën a gën laa góorgóorlu ci ndigal yi jaam moo la ëpp résultat diggantee borom moo la ëpp résultat diggantee ay moromi jaam waaye nag ak mooy moom képp ki nekk ku nekk loo am tey mën naa bëri waaye bu subaa mën ngaa ñàkk loolu sëriñ Sadio jërëjëf Baye Serigne Gueye mi nenul baaxal mu Baye Serigne ñu ngi ci waxtu mujj wi euh, ñaan ku nekk xam na ne dañ koy def mhm. waaye bala ngaa ñaan da nga seet ndax yow da ngay def bala ngaa ñaanal nit ki da nga koo seetal ba gis léppam xam ne koo mën a ñaanal la bu dul koo mën a ñaanal nga ne ko demal wala te bu jëkk dañ daan gis bu nit bu ko seetalee munu koo ñaanal mënu ko yow de diw sàngam mooy sa sëriñ wala diw sàngam moo lay ñaanal wala diw sàngam wala da nga xaar ba nang yow koo seet dangay seetal nit ba nopp sa koo ñaanal wala da nga koy ñaanal rek de man moom wax naa ko sama biir émission mooy. Mhm. même boo waxee sa mbirum bopp. leeral ma lépp sax du teewoo teewut. Mhm. danaa laaj sa tur waajur wu jigéen ak sa tur xooloo ko sama bopp ba noppi. Mhm. soo ko ma soo ko mën a boole léegi ma wax ma soo ko mën a aw ci aw yoon. te seet nag boo ko defee nag dalay dalay transférer yoon wi nga war a jaar ngir kii ngay seetal. lan mooy faj xaajoom. kii ngay seetal lan moo ko mën a mucc ci jafe yi mu nekk. ki ngay seetal lan moo mën a xëcc xéewal yi nekk ci kanamam te muñ ca jot. loolu seet mooy indi résultat boobu noonu. Mm, mm, mm. am na yoo xamante ne li fekk seetuma mbirum doomu aadama mënoo koo xam moo lay wax ne aaya sàngam. bind ko limu sàngam. turu yàlla sàngam bind ko limu sàngam. dafa ko cuuraay sàngam parfum sàngam loolu bu ko boolee jëf ni ko sàngam ci waxtu sàngam bis sàngam mu sarax nangam ak nangam bu koy def rek faaw suñu borom dafa ko résultat loolu moom loolu moom laa sàkk moom. képp ko xam ko ku xam li may wax da xam ne. ku aw ci yoon woowu moom faaw suñu ba ubbil bunt la bi ndax bunt boobu daa yaatu lool Serigne Saliou bunt booba mm-hmm. boo ko toppee mm-hmm. mën naa jël ci yow ci sab temps lu tolloog benn waxtu ba benn ba benn waxtu ak benn mm-hmm. mooy dem sax mooy tënk wax la ne turu yàlla sàngam wii nii boo ko jëfandikoo ci limu sàngama sàngam nit ki faaw mbiram day baax léeg sax nga jëf nga tur yàlla ngir ngir ñaanal ab jaamub yàlla mu mm-hmm. xëy soo ne man démb nangam ak nangam nga moom day wóor ni moom dangaa nekkoon ci moom démb yow da lay wóor ni yow nekk nga nekkoon ci moom démb moo tax mu gis loolu loolu ay mbir la mm-hmm. waaye nag bunti ñaay dafa yaat loolu alquraanu karim des na ci ñaan ngir ab jaam aajam fajo mm-hmm. turu yàlla des ñaan ngir ab jaam yàllam fajo maa ngir ab jaam aajam fajo sëriñ sa damay fàtt ko benn benn mbir bu ay jamonoy élection ko waxtu yu jëm. Mhm. benn candidat boo xam ne dama ko bëggoon lool ci sama xol ngir jëmi yàlla. ak mhm. jëmi Sëriñ Tuubaa rek. Mhm. ma jël benn ismullahi taala asam bi ñuy wax Jalal Kubra. 24 heures sur 24 dama koy wedd. maanaam xam lu ma tax ko moom. dem ci yestukaay ba ak julli ak lekk ak nelaw. waaw lu dul loolu maa ngi sama kurtu zeytun di ko wedd. yàlla borom bi subhaanahu wa taala moo def tawfeex sama digganteeg moom. dem ba. la may wér de wir tur yàlla woo moo dem ba ubbi kiiraay sama diggante ba ma xam ci moom lu wir loolu waaye nag loolu ak cofeel moom ma ko dugaloon mm-hmm. waaye nag du du du du du léegi nii loolu boo gisee ma di ko wax mooy. Mhm. turu yàlla nit ki bu ci jàppee. Mhm. faaw borom bi ubbil ko bunt. Mhm. alquran nit bu jàppee. faaw borom bi ubbil ko bunt. xasida bu ci nit ki jàppee. faw borom bi ubbil ko bunt yooyu ay bunt la yoo xam ni. jaam bu ci jaar faw suñu borom ubbil la bunt sa diggante jaam bi nga xamante ni moom ngay jëfandikoo. jërëjëf. bay sëriñ ñu fàttali numéro bi sa waxtu wi nu amoon jeex na ñu fàttali numéro bi 78 599 74 74 lan ngay tàggoo. waaw li may tàggatoo mooy di wax ni rek jaaro yi nga xamante ne waxoon na ko si émission yi jàll moo nekkaat nii. Mhm. képp ku bëgg ku nekk. Mhm. sa tur waaju wu jigéen ngay yónnee ak sa tur. ñu mhm. xool ban per nga war a am ak ban xaatim Souleymane moo war a nekk ci biir ak ban euh, ay xaar moo war a nekk ci biir. buñ ko liggéeyee bind ko ci waxtoom ci heure am liggéey ko liggéeyam def ko ci insha allahu rabbi buñ ko defee faw sa mbir dana soppeeku. bu hmm. fekkee ne da ngaa woon da nga ubbeeku. bu fekkee da ngaa ubbeeku ne umoo da nga am kaaraange ubbeeku bu fekkoon sa wërsëg daa néew bu fekkee fi nga nekk da ngaa bëgg am ay yokk ak daraja bu fekkee da ngaa bëgg a sab tànk sori lu mel ne xeet tukki xeeti mel noonu maam ci gàttal daal maanaam njariñ la moom la ci borom bi def. ak tamit xéewal goo xam ne képp ku ko takk ku nekk insha allahu rabbi sunu borom tabaaraka taala dana defal ñu kawe sa njott ci jaaro bii nii Serigne Saliou ñoo ngi lay ziyaar bu baax di ñaan borom bi subhaanahu wa taala jéggal suñu bàkkaar yi biir ak biti baat baatinan jëf ci réew mi jàmm wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñu doon seetaan ci Tanim TV ñu dalaloon Baye Serigne Gueye mi nanul baaxel xadim dégg ngeen xam-xam yi mu wax dégg ngeen jagle yi nga xam ne yàlla may na ko képp koo xamante ni dikk nga fii incha allahu rabbi bu leen yàlla déggalee la nga doon sàkku yàlla dina la dajaleeg moom mm. ñuy ñaan képp ku fi ñëw yàlla yàlla faj say aajo di ko sant bu baax di ko gërëm li may tey ci waxtoom ñu ànd ak moom ci Tanim yi ngir àdduna bépp mën koo joti gis ko ndax képp la koo xamante ni ku dikk fii ci moom jàpp naa ne doo ko rëcc waaye da nga fi indiwaat keneen